Public Affairs e euh, benn non profit organisation la benn organisation non gouvernementale buy xeex ak ak yelleefu doomu aadama euh, bu nekk organisation euh, panafricaine buy xeex injustice moo tax fi mu toll nii on est un peu plus concentré ci sur l' injustice politique bi nga xam ne moom moo xew Sénégal ci injustice yëpp nag la ñuy xeex économique sociale politique environnemental lépp loo xam ne ne injustice la jëmee ko ci doomi aadama yi mais fi toll nii. comme injustice euh, politique moom moo gën a nekk lu fës au Sénégal moo tax on est là aujourd'hui pour fédérer suñu colère ak waa Pastef ñi nga xam ne suñu partenaire lañ ci xeex bi. bon déjà on waa commencer par la commencement mooy Ousmane Sonko boobu ba léegi ñun euh, mun naa ne euh, manifestation yu bëri yu fi am ñun ñoo koy organiser en partenariat avec Pastef en partenariat avec Ousmane Tounkara ak ñoom Cheikh Anne xam naa ne war ngeen xam ñooñu. donc euh, boobu léegi on on s'active euh, presque tout le temps à que ñu nekk di xeex injustice boobu noonu donc en ce qui concerne euh, ñi nga xam ne ñoom ñu ngi daw Sénégal ndax injustice boobu di ñëw fii ñu ngi leen di jéem a jàppale pour que le temps soit peu ak ak suñu doole fu mu mënti yam ñu ngi leen di jàppale moo xam sur le côté sur le côté administratif ñu ngi leen di jàppale pour jëm leen insérer pour jëm leen jàppale ñu mun a am kayit nga xam parce que fii boo fi duggee am na am na benn app boo xam ne gouvernement am da la koy may. su fekkee tu n'es pas légal dañ lay delloo Sénégal donc nga jógee Sénégal fay xaalis bu bëri daw injustice ñëw ba fii après ñu delloo la donc euh, ça c'est pas vraiment moo tax ñu ngi leen di jàppale pour que ñoom ñu mën a éviter euh, ñu delloo leen au Sénégal. ndax des fois du am état am ñoo xam ne dañu daw laax aussi état def ay manigances comme gisoon nañu ko cas Sën Diouf def ay affaire ba ñu delloowaat ko biir dëkk bi est-ce que des fois du ngeen am ay ay problème yu mel Euh, di Sayer euh, Fall di booy am. waaw xam nga Sénégal moom yàlla yàlla def na ni malheureusement état bandi lañ fa am ay gouvernement yi bandi lañ fa am ñoo xam ne ne euh, daanaka ñoom tubaab yi la ñuy liggéeyal liggéeyaluñu Sénégalais yi seen bopp. donc du coup comme li ñu def Assane Diouf ils sont prêts à inventer n'importe quoi pour am génn cause moo tax Euh, Sayer mi mi fi ñëw après ñoom quand ils ont fait leur connerie au Sénégal ñu taal seen bisu bopp ba pare jiñ ko ñoom Sayer ñëw fii di jéem a xool nu ñu mën a xoxatalee Sayer pour ñu mën ko delloo mais li li li ci Sayer nekkul ci Assane Diouf li ci Assane Diouf nekkul ci Sayer donc booba léegi ñun ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan pour taxawu Sayer ut boo bokk nañ ci ñi ko jàppale pour euh, euh, pour trouver ko ay avocat pour taxawu ko en partenariat ak waa PASTEF ak ñoom ñoom Tunkara. pour que ñoom doo jaay doole bu ñuy def ak xoxotal bu ñuy def mu bañ a marché peut-être que ça va marcher au Sénégal mais fii du Sénégal li mën a dox Sénégal mënul dox fii c'est vrai que ça a marché avec Assane Diouf ndax Assane Diouf déjà affaire bi dafa bett ñu bëri ba pare moom euh, këy amuloon këyit donc c'était un peu compliqué mais bii pas puisque y a eu déjà beaucoup de preuves avant sax Sayer di fi yegg si donc c'était c'est très facile pour que ñu mën a jàppale Sayer pour que ñoom seen industrie bañ ci daal mais quel que li ñu xam mooy état Sénégal état wu bandi la ay bandi ñoo fa nekk di xoxotal sénégalais di rey sénégalais di tëj sénégalais injustement ba pare sénégalais di dem di dee ci géej gi ñii di jaar Nicaragua jëw ñëw fii au lieu duñ ci it duñu sax pipe moo te même bu fekkente ne sax yow da ngaa bañ say compatriotes mais bu fekkee ay 200 personnes dee nañ ci biir géej gi ñoom ay nit ñoo leen jur ay ay ci ay kër lañ jóge mais la défense même voudrait que en tant que président en tant que njiit nga dem massawu. même bu fekkee verbe sax nga wax ne maa ngi maa ngi masawu ñi faatu mais loolu sax duñ ko def donc wax dëgg yàlla euh, ñun incha allah ñun tamit duñu taay tant que ñoom taayee ñu seen banditisme ñun duñu taay suñu xeex injustice bu soobee yàlla. bon ñun ça depuis qu'on a mis en rapport avec euh, euh, Pastef ak les les avocats. boobu ba léegi ñun on est on est sur d' parce que umpale ni que Sénégal chaque jour ay dem dem rek ay woo nañ ma di ma di jox ay cas yu bees ay nit ñuy jógee Nicaragua donc chaque jour ba léegi nit ñaa ngi ñëw te fi mu toll ñu fi nekkoon déjà ils ont des problèmes am fu ñu dëkk am fu ñu am am lu lekk colline bi sax problème la fi mu toll nii te yow xam nga ne fi mu toll nii fii dafa sedd. boo am na nooy génnee ci biti lii fi mu toll nii lii ma sol nii maa ngi ci biti ça fait un lii mënu ko doxee mënu ko doxee cinq minutes ci donc il y a yoo xam ne on est beaucoup plus concentré parce que Sayer jàpp nañu fi toll nii moom son cas est déjà entre les mains de de très bons avocats Macky Sall ak i ñooñam mënuñu luñu ko dara fi mu toll nii mën nañ jéem nag ils vont perdre leur temps mais mënaluñu def Sayer dara. ñu fekk la ko fa ndax fonds yi dajale tey ne mën a dugg biir Sénégal waaw. Euh, c'est c'est une très très bonne question d'ailleurs euh, parce que ñun Africa First fi mu toll nii xam naa damay defal gars yi surprise mais jot nañ dajale koppar gu xaw a takku pour euh, jox leen ko bokkul ak ticket yi gars yi jënd parce que ticket gars yi nga ko jaay cent dollars mais ñun Africa First dañu dajale dañu boole suñu doole suñu ñaar dërëm ak ñetti dërëm ba xaw nañ dajale foom bu xaw a takku moo nekk sama poche fi mu toll nii dama leen koy defal surprise ñoom euh, bon comme xaw ma bon et fu mu toll nii mun naa ne parce que lu tax lu lu tax amin lu lu tere mu lu ko manqué un million CFA ab tuuti la donc euh, bëriwul mais alhamdulilah aussi que ñel ni ñuy dajal nañ seen ñaar dërëm ñetti dërëm donc gëm nañ ni bu fekkee quelque ñaar ñett def nañ loolu ak li ñu ni ñu jot a jënd ticket yi cent dollars loolu dina donc lu conséquent mais nag li important mooy xaalis bi ñuy dajale ñun suñu ñàkk la ñun ay sénégalais lañ on est Sénégal. même bu fekkee ñu fi judd la ay sénégalais ñoo leen jur bëggal suñu réew gëm suñu réew jàpp ne suñu réew fu mu toll nii boo gisee mu nekk ci ginnaaw ay njiit yu sàcc ay njiit yu tàppale ñoo fa nekk moo tax réew mu nekk ci ginnaaw mais su fekkee ne am nañ njiit yu baax yu mel ne ñoom Ousmane Sonko dinañ transformer dëkk bi comme ni waa Mali waa Burkina Faso nekk di transformer suñu seen dëkk. donc du coup ñun xaalis boobu loo xam ne suñu ñàkk la su fekkee Macky Sall moom am na fi taxaw ne ñun loolu ay xaalisu manipulation la je ne sais pas loolu c'est son problème de toute façon man xam naa ni sama xaalis maa ko ñàkk traçabilité loolu c'est pas un problème incha allahu rabi xaalis bi dina egg ci poche Pastef te xaalis bi dina egg ci poche Ousmane Sonko pour mu defee ko campagne moom Macky Sall ak i ñoñam mënuñ ci dara parce que du xaalis bu ñu lóobal du keneen moo ñu ko jox ñun ñoo ñàkk boole suñu ñaar dërëm suñu xeeb nañ ko sax li ma dajale nii yàlla xam na ne su ma sañoon ma dajale dix mille fois li ma dajale nii te incha allahu rabi ñun ak Macky Sall on va le mu neex ko mu naqari ko soobee yàlla.